ومن احسن قولا ممن دعا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyu mboolem kilifa yi fi teew ak mboolem mbokki jullit yi di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole ñu tawfiq te def jataay bi mu nekk jotaayu yiw boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf fi bind ay tuyaaba di fi jéggale ay bakkaar di fi yëkkati ay daraja mën naa yaakaaru ndax ci néegu sunu borom tabaraka wa taala la ñu nekk di waxtaane it tomb bu aju ci diine yi sunu borom tabaraka wa taala tomb bi nag ni ko cheikh ali badr waxe tomb bu aju ci dund gi la maanaam ci wàllu social bi muy ususu alxayaati zawjiya annaajiha sëy bu aw yoon te mën a sax ci yan kenu lay tegu lépp loo xam ne dafa nar a sax te dëgër faaw mu tegu ci kenn lu dëgër su kenn la woyofee rek mën naa gaaw a daan wàllu sëy nag des na ci di wax lu baree baree bari waaye lu ci gën a bari day faral di jëm ci wetu fiq gi ndax nangam dagan naa ak daganut suñ waxtaanu tey nag jëmul ci wet googu xëy na boo ay laaj yu jëm ci wet gi wet googu amee it taxul mu génn tem bi nag waaye wet gi bëgg a jëm dëgg dëgg dëgg mooy wetuk social gi mooy nit ki nan la mën a niitoo ci njàngalem lislaam ba mën a am sëy boo xam ne bu tegu ci yoon la te sax dañuy gis lu bare bari ay sëy yoo xam ne seen borom danañ continuer nekk ci lu yàgg ay soixante ans soixante-dix ans te mu continuer sax seen borom nekk ci jàmm amul benn werante ne lu mel noonu foo ko gis gannaaw tawfiixi sunu borom tabaraka wa taala am na sekkare bu ne ci gannaaw am na ay jéego yoo xam ne ñaar ñi seq sëy bi muy ku góor ki ak ku jigéen ki ñi ngi koy seqi ba jàmm ju yàgg jooju yi mën a am sekkar yooyu nag la ñuy jéem a luñutu jéem koo jëri tasaare ko ba xam ndaxte lee suñ borom tabaraka wa taala mën a def tawfiq suñ mbokk yépp mën cee jëriñu rawatina ndaw ñi ndax sëy yuy rëng-rëng gi bari na ci ñoom lool lool lool ba xaw a jéggi dayu sax la ginnaaw lu bari ci waxtu wi dafa dem nag danañ jéem a dëppaleeg li waxtu wi laaj jéem koo gaaral ci luy tolloog wenn waxtu su ko defee mën leen a bàyyeeg luy tolloog fanweeri minute defe naa ne dana doy Cheikh Ali ci lu aju ci laaj yi contribution yi su fekkee ne am ñaari xaaj lañ ko séddalee bu njëkk bi mooy lu jiitu alxeyri ji di am maanaam jéego yan lañ war a seqi lu jiitu ñuy fas sëy bi beneen xaaj ba ca des mooy su alxayri ji amee ba noppi maanaam suñ fasee sëy bi ba noppi yan jéego ñoo war a am ngir sëy bi mën a doon sëy boo xam ne dañuy wax ne tegu na ci yoon kon ñu tàmbale ci bu jëkk bi bu jëkk bi dañ koy tàmbale ci laaj kan mooy jëkkër ji nga xam ne moom la jigéen ji di wër ak kan mooy jabar ji nga xam ne moom la ku góor ki di wër ngir tontu laaj boobu faaw ñu dellu ci kenn ku ne la tax mu jóg di wut soxna ku ne am na lu ne ci sam xel léeg-léeg loolu yi nekk cim xelam dana ko wax mu leer naññ waaye léeg-léeg da koy bàyyi cim xelam di wax leneen loo xam ne lu lënt la am na góor goo xam ne rawatina ci ñi nga xam ne amaguñ benn expérience ci sëy dañuy féey ci géej gu yaatoo yaatu goo xam ne jigéen dañuy xalaat mooy koo xam ne amul benn ayib ku jéggi dayo ci lépp muy ci xeetu taar ak am xel ak yépp melokaan woo xam ne doomu aadama da koy xalaat day jàpp ne dafa war a mat sëkk ci wet googu yemul ca loola sax waaye day xalaat ne yi manqué woon ci moom ku góor ki soxna soosu bu ñëwee daf ko koy mottali waale muy féey nag ci géej gu mel noonu di seet mën naa seet lu yàgg nag du gis li muy seet mën naa dem ba defe ne gis na li muy seet su seqee ñaari jéego ñett xam ne lii bokkut ak li mu doon seet waaye kooku bum naagu li mu def ci xelam moo amul li muy seet moo amul ku amul benn ayib te léppam mat ba muy mottali ña ca des kooku nekkul fii ci kaw suuf ci jigéen bi ku ko bëgg da ngay jaamu yàlla yàlla jox la ca óorul ayni ca àjjana insha allah waaye fii moom yàlla na yàlla defal loola kooku mën nañoo wax ne li muy seet daal mooy benn miis boo xam ne mucc na ci bépp ayib ci wàllu jikko ci wàllu lu mën a doon ba noppi kawe yépp ci wàllu taar kooku du yomb léeg-léeg ci benn étape nit ki day xalaat ne soxna sim soxla moom kenn munta fees bëtam lu dul koo xam ne boroom diine kese la moom daal na am diine waaye nag jéemuta xool sax yeneen melokaan yi ca des leneen lu mu mën a am taaru na taaruwut am na alal amut alal am na askan amut askan yooyu yow néew ci na am diine kooku foofu rekk lay xalaat ci jamono yi muy wut waaye bés bu wutoon ba am kooku bu doxee diir bu gàtt dana xam ne am na lu baax a baax waaye bu fekkee dafa sàggane woon yi ci des yépp dana yëg ne am na lu mu bàyyi loo xam ne waroon na koo xool door caa dugg léeg-léeg keneen xalaatam mooy moom day ñaari waajuram yi dañoo dem ba toll ci mag te wax dëgg soxla nañ ku leen liggéeyal wala moom mii ci boppam sax mi ngi bëgg a toll ci at foo xam ne daal soxla na soxna su takkook moom di ko liggéeyal kooku mbindaan lay wut waaye nag du ñëw ci soxna si ne ko man kat dama soxla mbindaan leneen lay wax su dikkee waaye la ne ca xelam mooy mbindaan lay wut am na keneen koo xam ne li muy xalaat mooy fu mu noppaloo soxna daal la bëgg soo xam ne jekku na àddunaam mi ngi ak këram mi ngi ak ay bien mi ngi ak ay nàngam mi ngi fi béréb boo xam ne dafa sonn daa soxla saa bu sonnee rek da wéeru ji foofa toog fa ab diir nga xam ne kenn du ko laaj dara di su ko wax dara lépp dañ cay taxaw waaye kooka it buy wut si kooka du ñëw ne ko lii laa bëgg yeneen lay wax waaye nag la wér mooy loola moo nekk ca xol ba ak yeneen yu bare bare bari yoo xam ne dana di nekk ci xeli doomu aadama yi fekk ñi ngi wuti soxla amma jigéen ji li gën a bari jigéen ji toog di xalaat boroom kër bi ko war a takk day def cim xelam moom itam benn boroom kër boo xam ne amul moroom ci ak njàmbaaram ci xam-xamam ci ay jëfam ci am koomam kum dendal ku ne rek daa wel ne daa mel ne moo la war a féete kaw noona noona lay xalaate moom am keneen koo xam ne fi muy xalaate mooy daal moom dafa bëgg boroom kër boo xam ne du mer mukk moom daal ku lewet domm lay doon du gëddaate du xaste waaye sax du contrôler looy def ak loo dul def yaa ngi ci kër gi ak nekkoo ci ak fooy dugg ak foo jëm ak du dugg ci say mbir yi nga xam ne sa mbiri bopp la daal yoonam nekku ci maanaam kooku boo doon gàttal da ngay wax ne indépendance lay lay seet dafa bëgg boroom kër boo xam ne da koy may indépendance totale muy def lu ko neex su ko neexee toog su ko neexee dem su lu ko neex wax su ko neex dugg fa ku mel noonu moo nekk ci xelam waaye jàpp na ne li fee nit a ngi koy jéem a féete kaw di ko digal ak di ko tere jàpp na ne kooka nekkul boroom kër bi nga xam ne moom lay seet am koo xam ne li muy seet noom mooy ko am alal rekk nag suñ ne diw sàngam yëkkati na kàddoom jëm ci yow la muy jëkk a laaj mooy lu muy liggéeyee su liggéey ba baaxee mu ne alhamdulilah su baaxut mu ne ah wax weneen lay du ne mukk daa ñàkk moom itam waaye faaw mu am weneen lay wu mu wut boo xam ne day wax ne loola moo tax kooku alal lay wut ak dund bu neex waaye wutul boroom kër am na keneen koo xam ne moom it moog la ñu waxoon ca ku góor ka duñ soree mooy ku am diine rek lay seet waaye jéemut a xool yeneen melokaan yi ci des soo walbati ko xool yeneen i sabab yu bare nga fa am na ay góor am na ay jigéen yoo xam ne su ñuy wax ay melokaan dañ cay boole ne kii daa war a bokk ci sama askan wala daa war a bokk ci sama sama giir noo war a bokk lu doon wala noo war a bokk fu dëkk nangam yu mel noonu xalaat yu mel noonu dana di dana di faral di ñëw tànniin yooyu léeg-léeg ëpp sëy mën na caa tàmbalee am rëng-rëng ndax lam tegoon ci xelam tànne ko noona day ñëw du ko gisee nam ko doon séentoo su ko defee rëng-rëng tàmbalee am kon tànnin wi wér mooy bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale nee na tunkaxu lmaratu li arbain li maaliha wa li xasabiha wa jamaaliha wa li diiniha fadfar bi daati diini taribat yadaak rawaahul buxaari nee na boo xoolee doomu aadama yi ni ñuy tànne jigéen critères yi ñuy jëkk a xool mooy alalam walla aw askanam walla ab taaram walla diineem ñeenti yëfa ngoog yoo xam ne néew na nit di tànn jigéen te du lenn ci yooyu moo tax mu di ko tànn mu tecce ne fasbar bi daati diin yow góorgóorlul ba am boroom diine xadis boobu firiin wa ca gën a dëgër boo ko booleeg yeneen xadis yi ñëw yépp ci riwaayaat yi moo di ka ngay tànn ak melokaan wu mën a yor na ca diine bokk melokaan wu mën a yor na ca diine bokk waaye waxul ne kët na doon diine dong nga fàtte yeneen ya ca des li ñu koy won ne am na yeneen i mbir yu waree sa xool mooy li Bakr ibnu Abdullah al-Muzani nett bi jële ko ci al-Mughira ibnu Shu'ba radiyallahu taala anhu ne dafa demoon labati soxna ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man bi damay labat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko undur ilayha fa innaha ahra an yuqdama baynakuma mu ne ko na nga ko xool de na nga ko xool ndax lay tax seenub sëy mën a sax loolu ci sabab yi ci la bokk xadis boobu yi noo koy déggee moo di sëy bi nit ñi gisante xoolante dana jur ndax kii ngay bëgg a takk bëgg nga ko mu bëgg la wala déet te loolu ci fondation yi ci la bokk maanaam mënut a ñàkk boo àndoon ak sa sentiment ne diine kese kese dugg ba ci biir nga gis ne am na ci moom yu bari yoo xam ne bëggoo ko bu yàggee sëy ba day mujj yàqu rek kon bëggante gi ci fondation yi ci la bokk kon xadis ba la mu lay jox moo di diine day bu mu ñàkk moom ak lu mën a xew waaye su amee ba noppi nag bul tax nga ne du ma xool yeneen yi moo tax xadis boobu ñu bari solo nañ ko tirmisi nasaayi ibnu maaja ahmad saïd ibnu mansour daarimi taxaawi albayhaqi cheikh nasir al albani wéral ko ci riwaaya al imam ahmad ak albayhaqi almugira bnu shoba ne bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee loola nee na fa ataytuha wa indaha abawaaha wa hiya fi xidriha nee na bi mu ne maa undur ilayha na nga ko xool nee na ma ñëw seen kër fekk ñaari waajuram ñu toog fekk moom ma nga làqu ci biir ab làqukaayam jigéen ñi daawuñ def bu gan ñëwee ñu génn toog comme niñ ko xamee tey buñ masaan dégg ku fëgg bunt ba wala kuy ne salaamaaleykum ca bitti dañoo am seen xayma boo xam ne day mel nag sànke bu lëndam su ko defee ñu daal di dugg ci biir loolu la ñuy tuddee xidr mu daal di dugg ci biir nee na mu nuyoo nee na fa qultu inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara ni an andura ilayha nee ma ne man kat kii may labat damaa ñëwoon rek ci yoon wee waasu weesu wax ak yéen te gisuma ko waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma demal xooli ko mais bi mu waxee loolu yaayam ak bàyyam ne cel fa sakata qaala fa rafaat aljaariyatu janib alxidri fa qaalat axruju alayka in kaana rasulullahi sal allahu alayhi waalihi wa sallam amaraka an tandur nee na mu daal di yëkkati xayma ba bi ñaari waajuram ne cel ne ko kon day maa ngi génn ginnaaw yonente bi sal allahu alayhi waalihi wa sallam moo digle loolu moo moo digle woon ne muuru leen su digle ne génn leen ñu gis leen nee na ma génn su boobaa ñu sañ a gis xar kanam bi ak ténk yi qaala fa nazartu ilayha nee na nag ma xool ko waaw kay summa tazawajtuha nee na gannaaw loolu nag ma takk ko nee na fa ma waqaat indi imraatun bi manzilatiha nee na ñi ma mas a takk ci ay soxna amu ci kenn koo xam ne place bi ndaw soosu toogoon ci man mas na koo toog wa laqad tazawajtu sabina aw bidan wa sabina imraa nee na te lu jiitu loolu takk naa lu mat juróom-ñaar fukki soxna kon nag nga xam ne mariage yooyu jàll yépp dafa échec lu tax mooy am na muskila mooy noonu mu naroon a def bu njëkk rek noonu la daan def ñëw rek aw tàngooram may leen ma ko ñu ne fabal mu daal di jël yóbbu rek mu dem te gisu ko bu dikkee ba agsi mu fekk fa loo xam ne jëmut kër mu delloowaat ci këri bokkam juróom-ñaar fukk soixante-dix personnes yoo xam ne ci ay alxëyr yi dégg na ko kon jaaru ko fa mu ko waroon a jaar radiallahu taala anhu léeg-léeg it day xew ci ku góor gi léeg-léeg mu ñëw ànd ak melokaan woo xam ne bu agsee rek dañ naan kii daal bu waxee rek sooy ba ñu may ko soxna léeg-léeg nit ñëw ak melokaan wu yamamaay woo xam ne dañuy wax ne ah kii de moom daanaka moom xam naa ne nangam nangam loolaat yonente bi alayhi salaatu wasalaam joxe na ci ay orientation benn bis xadis bi mi ngi ci saxiixul buxaari yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci xadisu sahl ibnu saad saaidi nee na marra rajulun ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam fa qaala ma taquluuna fi hada ne dafa am benn waay bu romb yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne leen lu ngeen xam ci kii saxaaba yi lay laaj nee na ñu ne ko ah kii day xariyun in xataba an yunkax ne ñu ne kii day fu mu ñaane jabar warees na ko may fu mu ñaane soxna war nañ koo may wa in shafaa an yushaffa fu mu tinoo nit it war nañ koo tin wa in qaala an yustama fu mu waxee it des ko war a dégg kooku borom daraja la qaala thumma sakat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu waxee loolu ci waa jooju mu ne cell fa marra rajulun min fuqaraa il muslimin am ku fa romb ci ñi nga xam ne ci fuqaraa yu jullit yi ci lañ bokk fa qaala maa taquluuna fi hada mu ne lu ngeen xam ci kii nag ñi wax safaanub lañ waxoon ci kële ñu ne kii day bu labatee waree su ko may soxna bu tinoo waree su koo tin bu waxee jarul ñu koy diglu fa qaala rasulullahi sal allahu alayhi waalihi wa sallam hada xayrun min mili l ardi misla hada mu ne ko faqiir bii leen romb lim gëne keefe jëkk a jaar suñ feesaloon suuf suuf sépp fees dell ak ku mel ne waa jooju borom daraja jooju fees dell kenn xamul ñaata milliards lay doon ci ay doomu aadama su suuf feesee ku nit ay milliards yu bare bare bare bare lay doon ci ay nit mu ne ko su suuf feesoon dell ak waa jooji fi jaar borom daraja jooji mbooloo moomee la ñuy bari bari bari jénn jëmm ji ngeen xeeb moo ko moo leen gën ñoom ñëpp kon nag nga xam ne tànniinu góor ga it am na yu ñu war a xool yoo xam ne bokkut ak fax-fax jaag ne cëpp ak daraja rek ñu ne xalaas ki jeex na lu mu laaj nañ ko ko jox su waxee nañ ko déglu su mu jeex loolu ci njuumte yi am ci la bokk kon ñu mën a toxu ñëw ci étape bu njëkk bi ñaari marxala lan am al marxala al ula mooy xusnu al ixtiyaar tànn goo xam ne tànn gu rafet la bañ a sàggane genn wet ci anam yi nga xam ne itteel na kuy takk soxna te bëgg sëy boobee sax boole ko ak laaj ñi nga xam ne ñoo xam ñoo am expérience ci wàllu sëy ñooñu faaw nga diisoog ñoom tànn bu rafet boobu dana la dimbali ci loolu nga laaj ñi nga xam ne ñoo am expérience moo tax lu mel ne ay séminaire yi nga xam ne day jëm ci wàllu boobu doon lu am solo ndax day jàngal nit ki nu muy tànnee soxna ak nu mu koy yore su séminaire amut it mu gis ñi am expérience laaj leen beneen bi ci des mooy laaj ki nga xam ne moom nga jëm ci moom di ko labati wala yow jigéen ji kii ñëw ci yow di la labati nga laaj ña ko xam laaju borom expérience bi ci lu jëm ci wàllu sëy bokkut ak laaj bi ngay laaj ci waa ji wala ndaw si nga xam ne ci nga jëm laaj ko ñi nga xam ne ñoo xam jikkoom dañuy wax nag ne al mustashaaru mu'taman ki ñu ñëw di diisoog moom ci nit kooku dañ koo wóolu moo tax ñu ñëw di diisoog moom ci nit kooku am na ay melokaan yu war a daje ci moom yoo xam ne bu ci manqué rek dara du ko jar yooyu bokk na ci an yatakallama bi ilmin ala qadri alxaaja ñëw na di ko laaj ndaw si nga xam ne moom ngay bëgg a labati nga di ko ko laaj wala soxna si laaj na ko waa ji nga xam ne moo ñëw labat si ko te xam na ko suy tontu na tontu ci xam-xam na wax lu mu xam suy wax it na wax loo xam ne ala qadril xaaja lañ ca soxla woo dong la waaye bu mu jàll ci leneen su jàllee ci leneen kat day dugg ci jëw ñëw na di ko laaj man de diw sàngam laay bëgg a labati loo xam ci moom ne ah kooku de wax dëgg yàlla liñ xam ci moom lu rafet rekk la gone gu yaru la nangam nangam nangam nangam li ci gën di xam ñu bare bari jigéen ñi ñooy gën a xam jigéen su ko defee ka ñuy laaj bu doonee jigéen lam xam ci moom dana ko mën a wax waaye bu bëggee jàll nag yéggi li nga xam ne moom la xam ci moom su fekkoon na xam na ci moom ak jubadi mu ne ko ah jamono yeneen danaa dégg coow day digganteem ak ki waajuram léeg-léeg day ma jekki ba guddi ma dégg ñuy soow naan moom daa tëb miir bi ñibbisi ci guddi gi ah loolu soo ko déggee loolu ayib la waaye na doon loo xam nag waaye su fekkee nag bëgg naa jéggi yooyu yépp nag naan kooku day maama ba fi defoon nangam bëkk démb loolu yoonam nekku ci la maamam defoon ak la ndeyam defoon yooyu luy mbiram moom yoonam nekku ci moom mii la ñuy laaj ku góor ki moom itam noonu moom mi ñuy laaj sañee sota wax ci moom lenn loo xam ne luñ aju woowut la li aju ci mariage bi daal ndax dana jag ak du jag te aju ci waa ji loolu ca nga sañ wax kon tomb bu njëkk bi an yatakallama bi ilmin ala qadri alxaaja ñaareel ba an yatakallama bi adlin wala yuxaabi ahada li muy wax mu doon ak maandute bu mu gis ne ndaw si ñuy labat si mbokkam la te waa ji yaakaaru na lool mu waxal ko ci ndaw si melokaan yoo xam ne amut ndax bëgg mu takk walla safaan ba fexe ba bañ koo takk ngir leneen ñetteel ba an laa yet an laa yaktuma ayban yu assir su xamee ci ku góor ki ayib yoo xam ne mën naa jeexital ci sëy bi na leen ko wax su ko xamee ci ndaw seet noonu moom du ko nëbb ñeenteel ba an yakuna aminan laa yaxuunul amaana mu doon ku wóor koo xam ne kóolute gii ñu ko wóolu ba koy laaj ci nit ki du ko wor bokk na ci wor kóolute gi mooy bañ a téye aw làmmiñam man de diw laaj na ma ci nàngam waaye wax naa ko li ma ci xam nee naa ko nàngam ak nàngam ak nàngam di ko waxtaan ak nit ñi ñuy jóg di tasaare ayib jëm ca wax kooku ak tooñ la bokk na ci it nëbb ayib ngir xemmem téef comme la waaj a defoon dikk di labat ndaw si ñu ne ko diw sàngam day moom xam na ko ñu ñëw di ko laaj mu ne ko moom day yaru na def na lépp waaye bët ba nag dafa am lu weex waaye daal di génn ne ah man de kon kooku sooy ba ma bàyyi ko ndax jàpp ne loolu ayib la ci bët ba amuti fan mu dégg ne waaye ji mu ko doon laaj takk na ndaw sa mu ñëw di ko laaj ne ko waaw yow da nga maa waxoon ne ndaw si daa am ayib ba tax takkuma ko mu ne ko ayib jan laa la wax mu ne ko yaa ne ma woon bët bi daa am lu weex mu ne ko gis nga bët ba amut lu weex bët ba amut lu weex koo ko gis loolu war kóolute la kenn waru koo def ki nga xam ne moo ñëw di di diisoo si moom dafa am teggiin bu am solo boo xam ne war naa sàmmoonteeg moom ñëw nga di diisoo wax nañ ne la kii kat ayib sàngama ngi ci sooy rocciku roccikul rocciku bu rafet bul ne ko mukk wax dëgg yàlla bëggoon naa laa takk waaye gannaaw bu ma diisoo daal wax dëgg nag mënatuma ak kii kooku andil nga ko lënt moo xam ne kenn xamut lu mu doon ndax kan la diisul ak kooka lu mu ko wax loolu njaaxum la rawatina nag far mu àgg ca ayib ji wax ko nee nañ ma yow nii nangam ak nangam li jaadu mooy wax ak moom wax ju rafet ba génn ca projet boobee wan ko ne ko man daal jamono yi wax dëgg yàlla seet naa ko ba seet ko daal def naa istixaara waaye daal sama xel dalut moo tax damay def na ne bu mu dem dajeeg nit koo xam ne yoonam nekku ca ne ko ndaw sa di doon naa ko bëgg a takki waaye bi ma diisoog diw nee na ma nàngam ak nàngam ak nàngam ndax kooka ma ngay ma ngay siiwal ay bi jàmbur yoo xam ne wóoru ko sax ndax am na am déet kon loolu dafa jaadu lii mooy marxala bu njëkk bi aju ci xusnul ixtiyaar marxala ñaareel bi mooy al istixaara gannaaw boo tànnee ba diisoo ñi ngay diisoo ba xalaat kii jox na la xalaat kii jox la xalaat ba nga xam ne jàpp nga ne jéego bu njëkk bi taxaw na jàpp nga ne daal lii ngay bëgg a tànn daal baax na la ca sës nag mooy tànnloo sa borom nag al istixaara mooy tànnloo sa borom moom it am nay tënk an yaalama anna al istixaarata dua wa anna allaha yujibu man daa na xam ne al istixaara ci boppam ak ñaan la julli ñaari rakka tàllal say loxo sa borom yow sama borom yaa xam yaa mën man xaw ma mënuma mbir mii may bëgg a dugg daal di wax mbir mi lu mu doon su fekkee moo gën ci man ci sama àdduna ak ci sama diine yàlla na nga ma tànnal mbir mii te gërëm loo ko su fekkee ne nag mbir mii gënul ci man ci sama diine gënul ci sama àdduna yàlla na nga ko xàjji soril ko te tànnal ma leneen lu gën loolu te it sama xol sedd ca lii kat mooy ñaanum listixaara su ko nit ko defee julli ñaari rakka ñaan ñaan goog yi na séentu ne borom tabaraka wa taala dana nangu ñaan gi ñaareelu tombam mooy ki def listixaara jarul muy toog di séentu naan bu ma nelawee danaa gis nangam wala am na haatif bu war a jékki-jékki wax ci samay nopp ma di ko dégg mu ne man takkal kii wala bul ko takk wala ka tax manaaw na jëm day joor jëm na càmm ak yooyu yëpp ay caaxaan la yoo xam ne kii istixaara na ko wattandiku nan la ñuy xamee ne mbir mi baax na mooy am na ci résultat ba ca nga koy xamee su fekkee am na daal xam ne lii moo gën su amul nag xam ne ñàkk gee am moo gën ndax loolu nga ñaanoon yàlla da nga ne ko woon su gënee na am su gënul bu mu am kon résultat ba rek ca ngay xamee mbir ma ñetteel ba mooy wàññiwul dara ñuy takraar listixaara mën nga ko def benn yoon ñaari yoon ñetti yoon du wàññi dara bu ko ëppee it du wàññi dara ndax ak ñaan la rek ñeenteel ba mooy su fekkee ne def na listixaara gis ne mbir yi mi ngi yomb bunt yaa ngi ubbiku kooku mu ashir la mandarga la buy wane naa léf li di kon continuer moo gën yëf yi continuer ci moo gën ndaxte moom bunt boo fëgg rek mu ubbiku koo waxal ma ne la waaw kon day wane ne lii continuer moo gën waaye def nga listixaara ba àggal bunt yëpp ubbiku foo fëgg rek mu dëgër nga fëgg fëgg koo waxal mu ne la déedéet foo jaar ñu ne nga def nii dugg génn kooku mandarga la muy wane ne lii ngay bëgg a dugg moom itam du noona kon tànn na diisoo naag nit ñi def na listixaara marxal raab bi ci tegu muy ñetteel bi mooy maanaam bi nga xamee ne xusnul ixtiyaar bi nga xam ne mooy tànn ki nga xam ne jàpp na ne kooku baax na kooku mooy marxala bu njëkk bi ñaareelu marxala bi mooy diisoo ñetteel bi mooy listixaara kon ñeenteelu marxala bi mooy alxitba nag labat labat ci boppam mooy ñeenteelu étape bi labat nag mooy talabu yadil marati min waliha ñu ne soxna saa ngi bëgg nga ko nga ñëw ci waajuram ne ko ci waajuram wala kilifaam ko ko yëlif mën naa doon bàyyi ba mën naa doon frère ba mën naa doon keneen nga ne ko man kat sa kii nga xam ne sa kilifteef la yaa ko yëlif dama koo bëgg soxna loolu mooy labat labat moom yi nag dafa am ay teggiin yoo xam ne moom it sharia da ko ciy bëgg mooy bu mu yàgg labat ñi naan dafa nekk ci ngoro daaw ba ren déedéet sharia bëggul loolu su fekkee ne da ngeen a jublu loo xam ne lu baax la na gaaw noonu la ko sharia bëggee gannaaw boo jëlee say matukaay def yi nga war a def demal wala nga ñàkk a dem waaye bul ko fa tënk rek moo tax ñu naan dañoo bëgg nga may comme at ak ñaari at ba mu jàng ba àggale ñi continuer labat googu nekk fa lu baree bari am nduxum da ciy dugg ndaw sa d'accordoon na ne la feeg ñaari at ma àggale sama njàng nga toog di ko xaar day dem ba mu yàgg mu gis keneen ku la gën mu jékki-jékki bàyyi la nga dem wala ku góor ki jékki-jékki gis ku ko gën yàkkamti bàyyi ko fa te moom it tënkoon na ko boo toog na diir bu yàgg kon digee dig yu yàgg yooyee mën naa ñàkk ñaareel ba mooy allah yasxabaha mamnuatun charia labat gi muy labat na wattandiku am yu ñuy tere ci charia nga di ko def ci biir labat gi labat ñëw ci waajuru ndaw si wala kilifaam ne ko da nga koo bëgg mu ne la baax na ñoo ngi ci d'accord nañ ñun itam danañ la jàppal bis yu mel noonu xamal ne amagoo jabar buñ jàppoon bis bi ne la suba ci dimanche ji la nga toog ba tey jii ci samedi ji wala ci suba dimanche gi sax te fasaguñ ko ci ngoon gi xamal ne amagoo jabar kon lu daganul ci jaambur sa digganteeg moom daganul foofu wattandikul wéet ak moom wala li ñu tudde génn da ngay dégg ñu ne génn na maag moom xaw ma nangam ay weer wala at fu ngeen jëm bay génn daganut ay waxante ci téléphone yoo xam ne yu jéggi dayo la bindante ay risaala ay leetar moo xam sms la moo xam ay audio la moo xam lu mu mën a doon jàppal ne jigéen du nekk ab jàmbur ngay wax li ngeen di wax na doon wax joo xam ne ju yam la ju yam képp néewuñ nag bu leen wax mën ngeen a wax wax joo xam ne la muy jariñ bu dee testé ko laa am xelam ak yu mel noonu di ko seetlu yooyu yëpp mënees na koo xam te doo dugg nag ci yoo xam ne ay njaaxum lay doon étape boobu nag étape bu labat li gën a bari ci loo xam ne ñaar ñooñu moom la ñuy dund mooy li ñu tuddee waxam wal xayaal wal misaaliya la maanaam lu nekk cim xel te du réalité dëgg-dëgg moom ngeen di dund lépp sentiment la jëflante yaag ya ñuy waxanteeg la ñuy dund ak dañuy jàpp sax ne ñoom daal ñu ngi jublu genn dund goo xam ne suñ ci àggee daal problème moom seen problème àdduna day jeex noonu lañ koy xalaate noonu lañ koy xalaate am na waa ji doy waar mu ne soo rombee góor ak jigéen ñu toog ci jardin bi di waxtaan nga xam ne nit ñi leen di romb sax gisuñu leen mu ne ñooñu ci ak labat lañ nekk waaye duñ duñ jëkkër ak jabar ndax nee na ñaari way dencante seen waxtaan du àgg foofu loolu lim lay woon danañ ko xam ci kanam tuuti moo di ne étape boobu li ngeen di dund bu leen séentu ne luy continuer su ngeen ko séentu ne ak jaaxum am ñeenteelu tomb bi ci moo di dëggu nag dëggu ak leer maanaam nekk ku dëggu nga xam ne da ngay dëggu ci wax dëggu ci jëf dëggu ci wax mooy bul ko dig mukk loo mënul yow kay nangam ak nangam laa lay defal su ma la takkoon nangam ak nangam ak nangam nangam su ko defee mu jàpp ne moom jeex na bis bu ko takkee mooy féete ko soxnaam yépp wala mooy doon soxnaam si nga xam ne ci moom lay yem képp duuti jig léeg-léeg nga gis koo xam ne la muy dig soxnaam mooy duutuma takk keneen yow su ma la takkee jeex na su sa xel demaatee ci leneen kooku ñàkk a dëggu lay daal di tudd léeg-léeg ñàkk dëggu gi ci jëf lay doon gis ku jóge fële àbb yëfi jàmbur moo xam oto la moo xam nangam fax fax ànd dikk gaare ñu ne ah kii de moom ni mu dikkee tubarkal jàpp ne kii fekk maar day taali loo loo ndekkee bàyyi woo ko ci kër ga loolu wax lu dul dëgg ci jëf la maanaam da ngaa jëfee noo xam ne du dëgg ni nga mel dikkeel noonu Bilaal ibnu Rabaax radiallahu taala anhu bi muy labat ànd ak ne Bilaal mooy Bilaal kenn ku ne xam ne maqaamaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak màggaayam dafa dikk ne leen man de may Bilaal ibnu Rabaax doon ab jaam boo xam ne dañ maa jële woon ci Xabasa Abu Bakar Siddiq goreel ma ma doon ab jullit damaa bëggoon ngeen may ma soxna yooyu ma wax yëpp ndax lenn ngi ci lu lu lu amut lépp am noonu la tëddee ni la demee moo ne bu ko neexoon mën naa wax leneen te it loola dëgg lay doon waaye daa wax li gën a suufe ci ay melokaanam bu ko neexoon mu ne man may noddukat yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yonente bi du taxawal te du man maa dem ne ko taxawal jot na buñ dikkee may kàpp may liqaam mu door a taxawal julli buñ yeewoo fajar maa leen yee buy tukki fu mu toll may tontu ànd ak moom li muy wax ci lu jëm ci julli ndax waxtu bi jot naa ko man la koy laaj maa ko koy wax ah loolu martaba la de mënoon na ne man maay kii siiw ba nga xam ne sama tur foo dem boo ne bilaal ñu xam ko mu doon bilaal ci ñi gën a siiw ci saxaaba yi ci la bokk dem na ba jàkka yi sax kii nodd bilaal lañ koy tudde fan ah saxaaba yi bi gën a siiw ci àdduna mooy bilaal dem na ba noddukat bi dañ naan kii mooy bilaalu jàkka ji kooku lu am solo la ci biir labat yi yooyu boo ko seetloo rek ñeenti étape yooyu ma tudd nga xam ne sëy amagut yooyu yëpp dafa doon yoo xam ne mooy laltaay ju mag ji su fekkee ne nit ki juum na ci ci benn tomb rek résultat bi du feeñ léegi waaye ca kanam lay feeñ moo tax nag ci biir loolu dañ duggi ci ñaareelu étape bi muy marxalatu ma ba'da zawaaj bu tekkee soxna nag ba noppi marxala boobu nag aajo woon a fiq fiq bu xóot ngir dund ko nag mu mën a sax mën a continuer laaj na ak xàmmee bu baax moo tax am na foofu ay fondation ay kenn yoo xam ne nit bi faw mu yóbbuloo bi ci jiitu moo di al muxaafasa ala daymumati al mawaddati wa rahma lépp loo xam ne day tax nga mën a garder yërmande ji ak mbëggeel gi loolu dafa war da nga cay góorgóorlu su may wax ne da nga cay góorgóorlu nag waxuma ak ku góor ki waaye ku góor ki ak ku jigéen ji moom la ñuy waxal moo tax conférence bi góor ak jigéen ñoo ko bokk ci digg ba ni góor ñi toll xaw ma ni jigéen ñi toll waaye noonu la ñu war a toll wala ñu ëpp leen borom bi tabaraka wa taala daf ne wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun nee na moom sunu borom tabaraka wa taala bokk na ci ay kéemaanam la wax ay kéemaanam mu bindal leen ay soxna ak i jëkkër yoo xam ne ca la ngeen doon ca la ko binde min anfusikum maanaam bu ko sooboon moom sunu borom tabaraka wa taala mu bind nit def soxnaam mu doon xar wala bëy bind nag soxnaam doon jigéen yi jullit jigéen yi jigéen yi nit bind leneen defal ko weneen askan waaye déedéet min anfusikum ci la ngeen doon yéen maanaam seeni soxna doon nit comme yéen lu tax li taskunoo ilayha kooku mooy illa bi mag bi mooy ngir ngeen mën a am ak dal ci seen diggante ak seen soxna mu def itam mu bind ci seen diggante ak mbëggeel ak yërmaande ñii firi léeg-léeg ñu ne mbëggeel gi ci côté jigéen ji lay jóge yërmaande ji jóge ci côté góor gi waaye li dëgër mooy ñaar yépp ci ñaar ñépp la war a jóge mbëggeel gi daa war a jóge ci ñaar ñépp yërmaande ji jóge ci ñaar ñépp ñaareel ba mooy fiqhu tafriq bayna marxalati alxitba wal ayaam al ula min alzawaaj wa bayna al marahil altaaliya bokk na ci fiq ak dégg dégg kër nit ki xàmmee état bi yi muy toll jamono yi muy labat ak jamono yi mu takkee weer yu jëkk yooyee loolu lépp benn étape la benn marxala boo xam ne la ñuy dund moom daanaka ñoom ci seen xalaat mooy àjjana la joo xam ne daa war a continuer rek ba faaw waaye ñu xam ne loolu day bokkul ak étape yooyu ñëw ndax dafa am ay soppiku yoo xam ne dana am yoo xam ne mënta bañ a am te su amee li ngeen doon dund duutu mën a am nam doon amee ñaareel ba ngoog ñetteel ba ñu xam ne dund ñaari way dencante mënta mucc ci muskila problème mënta ñàkk waaye ñu xam ne problème bu am bu ne am na saafara problème bu amut solution amut xanaa kay ñi xam ko nangu koo def wala ñu ñàkk koo xam wala ñu xam ko ba noppi lànk bañ koo def waaye muskila boo gis bu ne am na solution boo xam ne moo ko war a saafara su fekkoon ne kër mën naa mucc ci muskila muy problème kon kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mucc ci ci problème yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na xayrukum xayrukum li nisaa ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay soxnaam te man maay ki gën ci samay soxna kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam jikkoom noonu la meloon digganteem ak soxnaam waaye teewul problème di am ci këram léeg-léeg problème yu tar sax nag yu metti yoo xam ne saafara gi day dem ba dëgër sax nag doy na rek nga xam ne dund na weer ci këram boo xam ne dafa abandonné ay ay soxnaam jóoteetul ak kenn dara ba saxaaba yi wax ne ndax da leen a fase ñii ne ndax nangam Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu door a dikk laaj ko ndax la nga leen fase mu ne déedéet waaye booba daf leen di yàq gannaaw bi la aay ja wàcc woo leen ñu tànn loo leen ku yàllaa ko yonentam tax a jóg nga toog ku bëgg àdduna ñu jox ñu doyal li ci magasin yi da nga doyal nga dellu sa kër waajur ñoom ñépp ñu toog ne nun kat yàllaa ko yonentam moo nu gënal àdduna li ci biiram mu daal di doonub yàq ñeenteel ba ñu xam ne yii xew ci biir kër yi ci ay problème yu sew sewaan ay xëccoog ay weranteeg ay xulóog yu mel noonu loolu ci sekkari kër la bokk ci sekkari kër la bokk wërta gaaw a génn lu dul su fekkee dem na ba jéggi dayo te mënuñu ko saafaraan seen bopp waaye bokk toog waxtaane yu sew sewaan yooyu di xew seen diggante ñoom mooy li gën a baax ci saafara problème yooyu ndax kat ka jóge fële ñëw di saafara doonte saafara na ko ba bàyyi leen fa kenn ku nekk ngi xool sa morom di ko wan ne ko bi mu ñëwee li mu wax man nii maa nekk ci dëgg waaye yow nekkul ci dëgg kenn ku ne loolu ngay xoolee sa moom su fekkee nag yéen yéen a bokk waxtaan seen waxtaan bopp ba jubóowaat dencaat seen problème kenn musta xam ne amoon na loolu mooy la gën foofu nag léeg-léeg mu jafe ndax kenn ku ci ne da ngay yëkkati sa bopp jàpp ne man su ma jëkkee wàcc ne ko kaay ñu waxtaan day day mel ne man maa néew doole bu dee góor gi noonu lay gisee kële itam daal di ne man itam day mel ne dañ maa not aw may pexe yu mel noonu su ko defee mën nañoo am ñetti fan ñetti fan kenn ku ne di romb sa morom lu ko waral mooy rëy kenn ku ne jàpp nga ne boo wàccee sa morom day defe ne da lay yàpp te fekk du loola saafara si dafa laaj kenn ci ñoom dellu gannaaw juróomeel ba moo di ñu xam ne takk ab sëy day moo gën a yomb garde ko yéego yi ngay dox bañ may la soxla la cay teguwaat foofa la jafe-jafe ba nekk ndax loolu aaja na lu bari nag ci ay volontaire laaj na lu bari nag ci yoo xam ne xam nga ne lii sa àq la nga wàcc bàyyi ko lu bari loo xam ne warul lii si àq sa àq la boo xam ne boo ko doon laaj te dëgër ca sëy ba sax mën naa dem ba yem fa nga bàyyi loola mu jàll loolu mën naa am ci ku góor ki mën naa am ci ku jigéen ki juróom-benneel ba adamul xuduu li duguuti al amal fa yunsa wala fa yansa qiimat al ahadis al xaasa léeg-léeg ni jamono demee ak liggéey bi ni mu mettee nit ki xëyee ci këram fajar di liggéey ba ngoon wala bu dee jigéen ji ci këram la nekk mu xëy ci suba nekk ci gon yi nekk ci ñoom ak togg gaag marché baag ba ngoon suñ yeexee liggéey bi noonu mu tëddee dana jël relation bi waroon a dox seen diggante ci toog di waxtaan ak di di déggoo moo tax kenn warta fàtte laaj sa borom kër lam yendoog liggéey baag nu mu demee tey coono baag yu mel noonu moom it wërta xañ ki nga xam ne mooy soxna si benn espace boo xam ne dana fa mën a nettali ay yëfam di wax léeg-léeg muy wax di nettali yoo xam ne sax pour moom pour ku góor ki yii moom ay mbir yu ñàkk solo la ndax sore naag néew bi mu toll xëy na waaye ki muy waxal fii la toll moom su ko defee mu may ko espace bu déglu ko di ca commentaire sax doonte xam ne li moom ay tawaafix la yoo xam ne daanaka amul solo rawatina su fekkee culture yi dafa sore ki nekk ci culture bu kawe ki nekk ci bu suuf kenn ku ne fa nga toll ngay waxe faaw nga wàcc léeg-léeg ni ngay wàccee ci xale bi ngay nax léeg-léeg nga wàcc doon gone di di di wax ak moom waxi gone soxna seet léeg-léeg nga wàcc di wax ak moom wala nga dugg ci ay domaines yoo xam ne sax wóor na leen ni yow lii sax doy say wax waaye nag mënoo cee bañ a wax parce que foofu la toll te ci lay ci lay wax moom te ñàkk ko wuyu ci loolu mën naa jur li ñuy wax al infisam as-samit mooy ñoo xam ne daal ànduñu tàggoowuñ ñoom ñaar ñëpp daal ñu ngi ci kër gi waaye dañuy xaw a rombante rek amuñu fenn fu ñuy toog di waxtaan loolu kër yu bari nag dal na leen kon ittewoo ka ca des ak ay mbiram ak ay jafe-jafeem ak ay yomb-yombam bokk na ci li nga xam ne day jëmbat di suuxat relation bi nga xam ne nga dox seen diggante juróom-ñaareel ba ñu xam ne étape bii muy étape boo takkee ba noppi kooku mooy marxalatul iltizamat wal masuliyat lépp ay responsabilité la ak ay engagement wuute na lool ak su fekkee yow dong yaa ne ci sa kër di dund sa célibataire nga nekk ci sa kër fu la neex dugg fu la neex génn loola neex soxna dikk na soppiku na yow soxna si sa dund soppiku na ku góor ki sa dund soppiku na kenn nga woon léegi ñaar ngeen am na ku ñëw bokk ak yow say mbir yow ku góor ki wala ku jigéen ki kon xamal ne dara soppiku na léeg-léeg ngeen di dem ba mu yàgg doom ne cëpp nag di laaj ay àqam moom itam soxla naa dara ci seen waxtukat seen coono yi ngeen doon kër kër yi soxla naa ci dara de faaw ngeen jox ma ci dara seen alal ji faaw ngeen jox ma ci dara bu ne cëpp rek tàmbali ah kon ngeen xam ne leneen soppiku naa ci espace bala soxna si doon may am na ci ab xaaj bu mag bu mu jël léegi di ko jox xale bi soo bëggee ne nag fan nekkoon rek la ñuy nekk nan fàtte xale bi du sotti kon sotti ku di am naka nag sooy dem ba mu yàgg seneen soxna ñëw ni cëpp nag ci kër gi fekk si soxna si jëkk geneen soppi bu mag daal nay xewati kon ki gën a am ak dal ki gën a am ak dal ci sëy bi mooy ñaar ñi nga xam ne dañoo préparé ci seeni xol ne lii ñuy dund du wéy am na ay soppiku ji ñëw yoo xam ne man pare naa pour lu ñëw rek danaa ko accepté gone ñëw na ma accepté dugal ci biir ñu dem soxna ñëw na ma accepté ab surga ñëw na sax dëkk ci kër gi ma accepté boole ci yaatu googu yi mooy tax nit ki dund dund xol goo xam ne gu féex nag lay doon goo xam ne du dana wàññi lu bari nag ci jafe-jafe yi bari na ay ñiir ñiirloo ak i xat-xatloo ak ay coowaloo yu biir kër yuy am yoo xam ne benn membre daa dugg si ba noppi accepté wuñ ko te nag ku dugg si ko ne da ngaa war a jël sa àq nag gone gi juddu wala gone yi mën nañoo yokk ñaar ñett ñeent juróomi gone ñoom ñëpp kenn ku nekk soxla nag sa àq bopp te des la ko war a jox comme ni seen yaay amee àq seen baay am àq noonu la ñu amee àq ñoom itam soo bëggee ne nan doon dund ak nun ñaar di ànd di dugg ak génn ak dem ak dikk bàyyi gone yi ci kër gi du sotti kon foofu changement bu mag day am juróom-ñetteel ba ñu xam ne ñaar ñi nga xam ne ñoo seq gone yi kenn ku nekk da ngay xëy cib coon muy ku góor ki muy ku jigéen ki njaboot gi ak kër gi sàmm ko loolu wàllu jigéen ji la léeg-léeg mu di ci sonn coon yu metti nag nga xam ne duñ noppalu bu nekkee ci gone gi bu ci jógee ma nga ca waañoo bu jógee fii ma ngay bale fële ma nga fële nangam nga xam ne ci suba ba ngoon daanaka bootul daa taxaw ku góor kaat la muy yàndoo ca bitti moom yàlla rek ko xam yàlla xam fa muy góorgóorloo la mu fay daj suñ borom a ko xam waaye mënu koo nettali sax moom ñooñu buñ dikkee kenn ku ci ne am na lu mu laaj buñ dajee ñoom ñaar ba wàcc ku jigéen ci mbiram lu yomb na kàddu gu tuuti rek bu koy encouragé ci lii mu doon def ah wax dëgg yàlla lii day am na solo kër gi day tubaarkàlla set na tey de moom wax dëgg xale yi ñëpp set nañ mel na ne day coono bi de mi ngi feeñ kàddu googu doy na ko sax ku góor keet nag doy na ko wax dëgg yàlla soxna si teeru ko teeru bu baax dalal ko yëg ko ne yëgal ko ne ci coono nga jóge won ko ci bitti sax ne moom fàtte ne coono bi mu yendoo woon moom soxna si moom it loolu doy na ko lu mel noonu rek day daal di indi ak dal ci biir kër gi juróom-ñeenteel ba xusnu muamalati zawji maa ailati zawjatihi wa kadalika al aks mimma yudfi jamalan wa rawnaqan ala alxayaati zawjiya ñoom ñaar rek couple lañ ñooy sëy ñoom ñaar ñaari way dencante yi waaye kenn ku ci ne da ngaa am ay bokk léeg-léeg kenn ku ci ne am ndey ak baay itte ji ngay jox sa bokki soxna ak itte ji sa soxna di jox say bokki bopp loolu day jëmbat li dox seen diggante da koy suuxat laa bëgg a wax léeg-léeg nag problème yu bare bare bari dana xew di juddoo ci fenraay ku góor ki ndax lu gën a bari ñoom dañuy dëkk ci këram sa yaay day dëkk ci kër gi walla sa baay sa soxna ñëw dëkk léeg-léeg sa diggante sa yaay ak sa soxna ab sëy dana ci yàqoo ndax soxna si dañ koy tuumaal ne moom day kii daa takk jabar mu di ko fiire ndax xëy na la mu doon am ci doomam mënatu ko cee am ah loolu c'est naturel maanaam waratu ko cee mën a am ndax yorul woon benn responsabilité ci jamono yooyu léegi dañoo yan ab responsabilité ci loosa daa am jëmm joo xam ne moo ko war a dundal moo ko war a dëkkal kon lam doon joxe mënut a bañ a wàññiku ñu tuumaal soxna si ne dafa fiir léeg-léegi ndaw si ñu ñëw ñu tuumaal ko moom it ne moom mii dafa ñëw sëy si di xool yaayi borom këram mel ne wujjëm day wujjeeg moom su xëyee sax fekk yaayam ci néeg bi nuyu ko salaamaaleykum mu ne man it lu tax ñëwul fekk ma ci sama néeg nuyu ma te xam ne yow yaa war a dem nuyu ci sa borom kër nag su ko defee ay yëf di xew foofu léeg-léeg mu dem ba jéggi day am na benn médecin buy nett li ndaw soo xam ne dafa dëkk ak yaay jëkkëram dund bi tàng metti metti metti ba jéggi dayo ndaw si jàpp ne soxna si da ko bañ dafa bëgg mu tas wala da ko bëgg nàngam di jëflanteeg soxna si jëflante yu metti bu boroom këram génnee lu ne lay woon soxna si bu dikkee mu xaw a wàññi ba mu yàgg benn bis mu ñëw ci docteur bi ne ko dëgg dëgg man dama bëgg loo xam ne moom lay jox soxna si ndax mu génn àdduna maanaam da ko bëgg a rey ñëw di ko laaj garab goo xam ne bu ko ko joxee mu dee docteur bi ku ñëw la te xarañ mu laaj ko li ñuy dund mu nettali ko lépp ba àggal mu génn benn butéel bu am ndox nekk jox ko ko ne ko boo demee gis nga lii boo ko ko joxee benn yoon wala ñaari yoon wala ñett wala fukki yoon day dee te su dee dee gu gaaw ay enquête mën na ciy dugg te su ci duggee danañ seet gis ne yaram wi posé na ngi ci te bu boobaa da ngay am problème léegi ni ngay def da ngay fexe ba di ko defaral ay ndékki ay café ay nangam yu neex di ca toqal tuuti fii deux mois su ko defee muy kii ndànk-ndànk deux mois trois mois su génnee àdduna yi dañuy wax rek mort naturelle la amul benn problème ndaw si commencé bu xëyee defar omelette am toqal ci as ndoxam dikk defar ah waaw lekkal waay di ko wax ak moom wax ju neex a neex a neex bu des tuuti mu dem indi café léeg-léeg mu indi boisson toqalaat dara mu ne ah man de sama doom ji wax dëgg yàlla mujj diggante bi tàmbali di ratax soxna ah yow de wax dëgg yàlla ana sama doom fu mu génn mu ne ko waaw da ngaa sori woon da ngaa génnoon jëflante gi soppiku soppiku mu gis weer jàllagut mu gis seen diggante dara xewatul lu dul jàmm mu dellusi ci docteur bi ne ko man de dama bëggoon a arrêté mbir mi te nga jox ma ma di ko jox loo xam ne duutu faatu ndax soxna si soppiku na moog sama yaay ñoo yam fi mu ne kepp mu ne ko nag kaay ma wax la gis nga li ma la joxoon mooy ndox mii nuy naan kenn dara newu ci am ndox mu ñuy naan dong mu laa la joxoon waaye daf ma wóor ne bi nga ma nettalee ni ngeen di jëflante yow mi yaa nekkul ci yoon gis nga soxna soosu boo jëflante ak moom jëflante bu rafet yaa koy moom bi nga sëy sëy jàppal ne sa yaay ja nga bàyyi ci kër ga moom nga fekkaat fii nga jëflante ak moom soo defee noonu rek problème du dox seen diggante waaye boo bëggee jàpp ne nag ab jaambor la boo xam ne daa ñëw di xëccoog yow sa jëkkër loolu mooy indi problème loola daal di saafaraw fukkeel ba moo di al ilaam al jadid xatarun ala al buyut yii ñuy jëfandikoo tey ci ay moyen de communication yi ñuy yor tey moo xam télévision ba la moo xam rajo ba la moo xam téléphone bii nga yor ak ya ca biir yépp nag internet ba kooku musiba la ci kër yi su fekkee ne jaarale wuñ ko fañ ko war a jaarale lim mën a yàq kenn xamul nu mu toll la ca gën a doy waar mooy dagg relation yu doxoon ci diggante nit ñi waxtaanatuñ da ngay fekk famille bu toog ñépp kenn ku nekk rek yor ab téléphone mën nañoo toog diir bu yàgg kenn du wax wala ki ngay waxal sax mën ngaa wax ak moom ñaari ñaari yoon ñett ba mu yàgg ma ne ah nga ne ko yow laa doon wax moo ne de fekk moom ci beneen monde la nekk bu bokkul ak fi ngay waxe am na benn waaye bu ne waa ji daa toog ci këram ba mu yàgg ñoom ñëpp seen jumtuwaay yi ñu doon jëfandikoo courant bi coupé diir bu yàgg kenn mënatu ca jokkoo ñu mujj toog di waxtaan mu ne moom bi courant bu coupé boobu tax na ci la trouvé ne waa këram ndeke ñii am nañ culture ñii am nañ teggin ñii am nañ nangam xamuleen woon waxtaan woowu ñu toog di ko waxtaan ci la trouvé ne ndekete moom am na njaboot goo xam ne ay nit a ngi ci wax ne ñii yewwu nañ ñii xam nañ lii ñii xam nañ lii kooku musiba la benn xale ñi ngi koy nettali rek bu yàggul ñaari waajuram dañoo xuloo ba war a tàqali ko li xuloo bi metti metti mi ngi yor appareil rek moom mel ni yëgut lu xew ñu xuloo ba ne dañuy tas séddoo bagage yi kër gi ñu séddoo séddoo séddoo ba noppi kenn ku ne jël wàllam ñu ne waaw ngóor si nag ku muy àndal ñu waxtaan d'accord ci ne nañ ko laaj ku kum tànn rek mu ànd ak moom ñu ne ko yow koo bëgg a àndal mu ne di séddoo ngeen seen i bagage ak seen yëpp ba pare mu ne waaw mu ne kii yóbbu wifi bi rek laay àndal kooku tëlatul lenn moom wifi ak appareil loolu la tal waaye xalaatul ay ay relation diggante doomu aadama ak keneen kon moyen yooyu àgg na koo xam ne ci doomu aadama yi tey bu ñu wëttuwul diggante nit ak nit day mujj relation bi koy yàq ña ngay waxal daal mooy ña ne ci bitim réew ña nekk feneen ña nekk feneen ngeen bokk nekk ci ay groupe sa njaboot gi toogoon day dem ba dara duutoo ko xam ci ñoom ñoom it duutuñu xam ci yow dara su ko defee fëleen dara di duggit tabbal ci ñoom ay njaaxum ak ay xalaat yu baaxut ak ay mooy yàlla sax doo ko yëg parce que taloo ko yëg fukkeel ba ak benn moo di tànn tànn waxtu lenn lu ne nga tànnal ko waxtu su ngeen di discuter ci benn tomb jaadu nañu am waxtu woo xam ne ci ngeen war a toog waxtaane ca tomb boobu sooy sàkku dara ay doléance wala du mel noonu war ngaa tànn waxtu woo xam ne dëppoo na ak woowa thème bi ngeen di waxtaane sax wala ngeen di ko junji rek war naa fekk mu dëppoo ak situation bi ngeen nekk nit mënta jóge ci liggéeyukaay ba aku ñaqam ne cëpp ci kër gi nga ne ko li desoon la jeex kooku xam fu jëpp musiba facture courant ba de agsi na facture courant te nuyoo salaamaaleykum waaleykum salaam facture baa ngi nii loola foofa du waxtoon dañ koy teelu ndànk xale bi de dafa soxla ñu jëndal ko ay couche fekk yéen a ngi tiim añ bi loolu loolu du waxtoon ci tiim añ bi di añ nañ wax ak moom ci yëf yu sell ay nangam ay nangam ba mu añ ba noppi lu jëm ci couche yaag yi ñuy defal xale yaag yu mel noonu yooyu ñu bàyyi ko ba noppi moo tax lenn lu ne tànnal ko waxtoom ak waxtu dana dana sakk bunti werante ak bunti gëddaate ndax kii door a wàcc ne cëpp rek nga ne ko dépense amatul kooku bul séentu ne kàddu gu neex la lay wax mukk te fekk nag defoo dara ndax li nga wax am na waaye ni nga ko waxee ak fi nga ko waxee kooku baaxul tànnal beneen waxtu boo xam ne moo gën ba ca tegu wattandikul yow ku góor gi ak ku jigéen gi di melal sa ki nga nekkal ca ñeneen ña maanaam yow jigéen ji bu dem ci jigéen ña di wax ak ñoom ci sa jëkkër yow ku góor ki bul def noonu dem ak ñoom di wax bul def mukk sa jëkkër wala sa jabar mu doon temu waxtaan ci ñeneen ñoo xam ne seen yoon nekku ci ak la ngay wax lu mu mën a doon bu doon lu baax sax jaru ko nag ndax moom lu baax loolee ngay wax mën naa indi jaaxul jigéen mën naa toog ki jigéen di wax ci jëkkëram ba ñooñu jóge fa ne kooku moom faw danan danan danan ko gis njaaxum mën na caa juddoo safaan beet noonu góor gi mën naa dem di wax jabaram ba góor ñi jóge fa ne kooku moom ëpp naa mucc musiba di xew kon bul def sa moroom mu nekk te mu waxtaan ak foo mën a nekk bul may kenn nit mu néewal wala mu ñàkkal solo wala muy wàññi sa ki nga nekkal bul ko may mu wax ci moom baat bu baat bu koy suufeel moo xam sa jëkkër la moo xam sa sa soxna la sa senn soxna sax bu bëggee wax ci keneen ka baat bu koy suufeel saafaraal loolu bu mu wéy loolu du yoon la gën a gaaw ci faj ko nag mooy su waxee ci moom baat bu koy suufeel nga wax baat bu koy yëkkati yow fu mu tàmmee ne su tuddee moroomam ne diw sàngam nangam nangam nga wax ko ci moom ca la rafet ca kooka duutu sawar ci wax ci lo ci loolu ndax dana xam ne loolu noppiloo ko la ñaareel bi su fekkee ne daa am lu nekk ci xolam bëggut a dégg ay tagg ca kooka te yaa ngi ko koy dégtal su xamee ne bunt bi mooy tax nga di ko dégtal tagg yi bunt boobu day daal di sakk kon wattandikul kenn di suufeel sa nit ci ci sa kanam ngay noppi ca loola wala nga di ko ci dëgëral ba ca tegu moo di rafet njort nag ca ka ca des ndax loolu day tax li dox seen diggante di gën a dëgër kenn ku nekk rafet njort ci ka ca des ne kii day na ma bëggee woon noonu la ma bëggee ba léegi loolu lu am solo la bu mu dem ba mu yàgg mukk mu ne kii xam naa ne amatuma soxla ci moom amatul soxla ci man wala yu mel noonu ndax loolu day indi ay sikki sàkka te loola baaxut gëstu sekkare yi jàmbur lu mat a wattandiku la moo xam sekkare yi téléphone la moo xam lépp loo xam ne ka ca des da koy nëbb ka ca des mu xam ne lii vie privée la dëgg dëgg dëgg loola njërte gëstu lu mu la ca may rek nga xam lu mu la ca may nga xam ne xamoo ko rafet na lool nag bañ a xiir lool ci nëbb gu ëpp sa diggante ak ki nga nekkoon ndax nëbb gi bu ëppee day mujj nag ay sikki sàkk lay jóg ki nga xam ne téléphone am bi mu teg bu sonné rek mu gaaw jël ko mel ne dara dafa xew ne ku cëfit kooku ki ki toog foofu te gis muy faral di def loolu dana mujj nag mu ne kii de ni muy jëli téléphone am bii am na lu xew moo tax lu baax la saafara la soo toogee ba mu yàgg nga jël sa téléphone jox ko sa borom kër mu xool moom it noona wala su bëggee xool nga ne ko mu ngi nii seetal xool SMS yi xool WhatsApp yi xool naa ko xool naa xam ne dara nekku loolu dana tax boo ragalee ne daraa ngi ci xelam nga dindee ko noonu loolu lu baax la waaye téléphone buñ côté boo xam ne bu sonee rek nga gaaw këf bu SMS dikkee nga gaaw këf te fekk ki nga toogal kenn dong la muy sa soxna wala sa borom kër loolu moom mën naa indi sikk-sàkk bokk na ci it mooy ñaar ñi nga xam ne dañoo ne ci seen kër di di liggéey ci seen kër ñu yëg ne benn équipe buy liggéey la kii day jàpp fii kii jàpp fii ñuy góorgóorlu parce que ab sëy bu tegu ci yoon te nar a sax ab liggéey la boo xam ne dafa yor projet boo xam ne dañ koy tegal seen i plan di ànd di ci yëgu di ànd di ci liggéey di ànd di xalaat ca seen kanam ak lañ bëgg ci kanam ak yu mel noonu yooyu moo koy moo koy ràbb moo koy defar
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم